sëñ Bass Abdou Khadir yii bu ñuy wax téléphone daanaka suñu suñu suñu suñu communication li ci ëpp ci Palestine lañ ciy wax. waaw lu ngeen ci xalaat ak lu ngeen bëgg a def ak nu ñu koy defee. Mhm. donc mu mel ne mbir mu euh, démb rek te wala tey ci bëccëg asafura. Mhm. maa ngi jokkoo ak suñu euh, jiili Moussa Abdou Aziz. mu mhm. nga xam ne xam ngeen ne lëkkaloo gi muy def ci diggante Touba ak euh, réewu arab yi. depuis jamono si si dem sax ba tey. suñ mun taxaa ñëw yeesal loolu waaye démb rek damay woo naan ma war nañoo xool taxawaay bu ñu def ma ne ko taxawaay boobu am noo pare xanaa ñu xool nu ñu ko fësale rek mm. <laughs> ci bëccëg gi maa ngi jokkoo sama mbokk laji mbàkk yi woo naa ko jotuma ko waaye ko moom mm. nañ fexe ba ndajem àjjuma ji mm. eh, taalibe Sëñ Tuubaa yi ne ca kanam rek waaw ah, ndax ku xam Sëñ Tuubaa xam ne léppam lislaam la léppam xaddiye aadi la mooy cause bu noble kon nag bu àjjumaa te ginnaaw fa ñu koy defee ci loolu Masaalik uh, ci sama tur ak ci turu taalibe Sëñ Tuubaa yëpp maa ngi ñaan ku julee Masaalik rek na dem place Obélisque. waaw ba ba ba yëf yi ñu ngi sant suñu borom baax a baax. Euh, di wax caay-caayu man sax du du wax Israël parce que sama leader politique mooy Kadhafi te daawul wax Israël aduwu sa fi ni doon wax. l'ennemi sioniste. Ah. moom si <laughs> kon man foofu laa ji référence mooy mooy addu la noonu la ba karoog muy nangu ni uh-huh. mu doon réew Palestine doon réew uh-huh. fi fi nangu Palestine doon réew moom am noonu lañu ko jàppe rek uh-huh. kon uh, ndax bu yàggul daaw wala daaw jéeg mm-hmm. uh, daa am ndaje boo xam ni réewum Palestine nañ koy daje ci xut da ci da ci woo borom xam-xam yëpp. Mm-hmm. ñu jógee fan ci àdduna bi uh, defe naa deux mille deux mille euh, dix neuf. Mm-hmm. mois de mai ñu invité ñu man ak Oustaz Dame Ndiaye ñoo fa teew am lu mat quatorze pays yoo xam ne ñoom palestiniens ci seen nangu. ñu ñee ñoo fa nekkandi. ñu ñu sàkku nii ñii de suñu ngan lañ dañoo bëgg a ñëw romb seen frontière yéen juif yi yéen noon yi pour ñëw xut dafa benn ndaje mm-hmm. ba kenn ku ne si ñu yónnee la sa autorisation d'entrée mm-hmm. waaye bi nee ba Jordanie mm-hmm. quatorze pays yëpp fa la ñeen bloqué waaw nga xam ne ñu kenn ci ñun àggul àggul ba tey euh, Palestine te boobu dañoo war a doon Jordanie jël ay biis dem euh, réewum Palestine nga xam ne ñun foofu lañu mujj toog ci Jordanie la doon xew xot su ñoo ko doon siiw par vidéo conférence xam nga caay-caay mënut a weesu loolu waaw jël jël imam Assane Seck da nga jógeel Sénégal boo ñëwee ba Jordanie surtout bi ngi ci boo demee da nga fekk sa visa loolu ñoo tudd visa mhm. nga ñëw ba foofu ñu ne la yow ñoo ñoo la ko may waaye nangu nañ ko mënatoo ñëw xam nga caay-caay mënut a weesu loolu hmm. waaw donc mu mel ni noonu la boo xam ne mu ngi fi euh, gis naa ne def ay marche buntu ambassade ba ngay jor ko mhm. mais li am solo dëgg dëgg dëgg mooy ne àdduna bi yëpp xam ne jullit Sénégal taxaw nañ di méttilu lii nga xam ne mi ngi xew ci réewum mm-hmm. Palestine mm-hmm. démb rek bi may seetaan ñu ngi wane ni benn immeuble boo xam ne ay ay de presse ñoo fa ne ay étranger mm-hmm. ñu dem màbb ko di màbb jàkke di rey xale yi di rey maanaam maanaam barbare gi toll mu fi mu ci àdduna bi maanaam àdduna dafay soofu ci gàttal euh, loo ñu ngi ko doon gis ci Afrique du Sud di ko méttilu ñu demaat ba vingt ans après ñu koy suivraat ci am réew moo xam réewum l'islam réewum jullit Euh, lu mel ni masjidul aqsa nekk fa. Mhm. ak masjidul aqsa li mu représenté ci xolu jullit yi. xut mhm. euh, su nekk fa nga xam ne suñu mag ñu baax ñi sax bu ñu mosaan dem Màkka. Mhm. a. maanaam ci bëri bu ñu mosaan jaar dem Màkka te àgguñu foofa bu ñu dëpp dañu fa jaar. ndax xam nga xam bërëb boobu lu mu symbolise ci lislaam. donc nag bu ñu ba heure bu nekk a maanaam al adaawatu takarrar. bayna yawmin wa axar donc loolu moom ñun ñëpp war a taxaw manifesté wu. bu kenn ni murid la bu kenn ni xaadir la bu kenn nit ñëpp taxaw ne xadiya Falastin xadiya insaaniya la mhm. xadiya diiniya la xadiya taarixiya la mhm. maanaam maanaam maanaam comme maanaam mbirum la mbirum humanité la mbirum àdduna la kon daal man sama baat bu oyof bi nga xam ne tekk dara représenté muy bëri maa ngi ñaan jullit yëpp altine asafra ajjuma maanaam nañ dajaloo oblis bu ñuy wax